sama xarit la Aline Aline mii bu soobee yàlla su ma siyaare jee ma demee pénk ba ñëw mhm. siyaare jee ku tedd gi ba ñëw mhm. moom laa bëgg mu ma tantal ko tant gu rëy waaw waaw maa koy déplacé digg Kastoor maa koy déplacé indi ko moo koy taggal mhm. ma koy teral wallahi azim waaw loolu laa ko am ni dëggantaan da ngay dem ni waa léegi Papa Ndiaye ñu tollatuñu foofu. ñun weesu na ñu ngi nekk si ay ñaqoog di préparé woo. ñun ñu ngi nekk si hôtel bi ñu war a wax parce que diggante cinq étoiles ak six étoiles lañ ma doon wax. maanaam nañ ko def cinq. Uh-huh. parce que système sa troll duñ la may lépp nga jël lépp. waaw lépp du caaxaan de. léegi nag Papa Ndiaye. ñee naa ko trop te iñaane ko billet bi. Papa Ndiaye man moom wax dëgg yàlla dama ko fan sax instant yii. dama ko iñaane billet bi non parce que yàlla laa toog di wax nangu nag. billet bi laa ko iñaane billet bi yàlla yàlla réer balaa. Ah, yàlla tere waay bàyyi mu dem rek. non non Papa Ndiaye bu ma demee bu ma demee mel ni dem nga. Uh-huh. ndax du ma la wax. non non ay yooyu dem daw ma de. yow mii yaa dem nga xam mel na dem na. fu ma taxawee ci kaabe gi wala appel vidéo la Ndiaye ñaanal. waaw ah, kon baax loolu loo loo si bëgg. dara loolu kon yàlla nga <laughs> léegi nag mu am sama benn xarit boo xamante ni dañ koy dama koy nuyu de passage. Mhm. muy yaali jëkkëru meme. Mhm. moom démb la woon ab anniversaire am woowu ko ma bàyyi ba tey mhm. en direct yàlla xam na man xam naa Papa Ndiaye kooku bu ma nekkee France teranga bu ne defal na ma ko yaay gor waaw teranga bu ne bu ne bu ne bu ne boo xalaat ci teranga rek yàlla defal na ma ko moo tax may ñaan gudd fan wér gu yaram yàlla bàyyi la suñu kanam nga dem ba siyaare ji rasulullah waaw nga dund fekkee njaboot yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp seen njëriñ mhm. ba sa doom jooju mooma nga mhm. fekkee njëriñam ah mu lay weer ak weeri bàyyi la ak sa jabar maa ngi lay ñaanal ab vrai de cœur au vrai de cœur waaw mon frère tu es tu es un homme humble tu es un homme superviseur tu es un homme courageuse tous les temps waaw bu ma fa jógee nag damay nuyu nag sama yaay booy na fi càmm mm-hmm. ah. waaw moom mi nga xamante ni moom moom mm-hmm. maa ko yaayoo mm-hmm. maa ko yaayoo de yaay papi ak Cheikha chéri euh, papalay kooku mooy sama manager di sama conseil di sama xarit di sama lépp mu jógee foofu mu dugg itali nuyu si sama mag jooju nga xamante ni mooy Mbacké déglu rek gàmm màggal Touba dama ko def lu ko metti te loolu te loolu day tàggoo benn yu màggal Touba dama ko def lu ko métti te loolu laay bañ màggal Touba bi dama ko encaissé am en public Sénégal àdduna yëpp ak may dégg trois cent mille pour mu yóbbu ndékki Touba moom mën na ko ndékki manqué na laal bu ñu bu ñu avalier manqué na trois cent mille parce que daara alimentaire bi la indi Italie indi ko mën na ko léegi affaire bi am na yu manqué yoo xamante ne amul Italie am na fii foo ñu jënd ko mu jox ma xaalis bi bi ma joxe xaalis ma dem France mu jiwaat loo ndékki li ci màggal Tuubaa bi ma koy ma koy jéggalu ci tele bi ñëpp di dégg foofu nag laa mën a yem ci jéggalu boo munee baal nga baal ma boo mënul baal nag kooku nag nga def wax ak yow waaw nga wax ak yow temps baa ngi day régler ay problème yow sa dóor yow yow mi sa dóor fii duñ la may ndax dañuy def sant na bi tey doo fi ne dañuy sant Oustaz Pape Samba maa ngi lay nuyu di la bëggee di la dalal jàmm te sant na bi tey bii tabaarakallaahu ñoo bokkoon classe